juróom-ñeenteel yoon muy participer ci coupe d'Afrique des nations bii nag mooy nekk ñetteel yoon bi nga xamante ne qualifié na ci quart de finale ginnaaw ba nga xamante ne première fois bi mi ngi moo ko génne woon daal di koy éliminé bu gi la woon euh, équipe bi di moom moo ko éliminé woon ci noonu nag Angola daal di am mbëbët comme jàll euh, demi final bu coupe d'Afrique des nation jamono ji beneen affiche mi ngi am ci diggante Cameroun la ak euh, équipe boobee di Nigéria mu nekk affiche bu nar m restant même au jour la 19e minute ku nekk euh, kenn dugalagul sa morom donc loolee ñeel deuxième affiche bu huitième de finale bu Coupe d'Afrique des Nations lu mooy loole ni ki ni suba am beneen match Guinée équatoriale dina laale ak la Guinée Conakry le match est prévu à 17h et l'Égypte fera face à la, la République démocratique du Congo le match est prévu à 20h loolee demee lay doon euh, euh, dimanche lu mooy loolee altine ji dinañ am match bu ci mel ne Cap-Vert bu njëkk huitième de finale am ci Coupe d'Afrique des Nations Sénégal champion d'Afrique fera face à la Côte d'Ivoire mi nga xamante mooy pays hôte beneen match bu mujj bi euh, yeneen phase yu mujj yi jeex Mali mooy laale ak Burkina Faso et le Maroc fera face à l'Afrique du Sud lu mooy loolee Sénégal mi nga xamante ne dina war a jouer ak Côte d'Ivoire ni ki ni altine ji euh, ca Yamoussoukro Côte d'Ivoire nag moom moo fekk ji Sénégal ndaxte Côte d'Ivoire a bi ñu sukkandikoo ci Youssou Diall nekk conseiller en marketing ci président fédération sénégalaise bu football moom nag dafa jàpp ne jamono ji Sénégal bu fekkee dafa bëgg a dóor Côte d'Ivoire warul rek négliger benn moyen dafa war a regrouper ay atum yëpp maanaam def lépp li mu mën euh, war a taxaw ci défense bi attaque bi ak itam milieu bi ngir rek mën a dóor équipe boobee di Côte d'Ivoire Youssouf Diall ci micro Soxna Fall. am nañ aussi habitude donc di jouer donc ay match couperé on a l'habitude donc di jouer ak ay équipe euh, yi nga xam ne ñoom ñoo organisé c'est vrai que jusqu'à présent réussir ñu waaye tamit aussi bu woon équipe bii la ñu yore woon mais ci équipe bii dafa nekk champion d'Afrique ba pare si boor si équipe bi dañu am ay joueurs yoo xam ne am nañu expérience tàmm nañu joué match yi boo xoolee ñu mel ni comme ay Sadio ay Gana ak ay Koulibaly ñoom euh, joué nañu lu mat au moins quatre Coupe d'Afrique si euh, seen si seen carrière donc am nañu assez d'expérience pour mën a dëpp am ambiance bu mel nii wala pour mën a dëpp ci événement yow yu yu mel nii man moom tey jii boo seetaanee joueurs yi seen entraînement wala nga dem fekk leen seen regroupement da ngay gis dañuy dégager ak sérénité ak confiance mais loolu ak confiance xam nañ ne aussi ñoom seen bopp que dans un match donc day tout am donc xam nañ ko moo tax tamit aussi ñu naagu man gëw ma ñu am ay joueurs yoo xam ne donc nañu naagu yi nga xam ne dañuy am xam nañ ni donc bu ñu tey jii am nañu capacité pour gagner euh, Côte d'Ivoire te incha allah euh, leen dinañ gagner comme ni mu koy wax aussi si nasaraan li gën am solo mooy clé match moom mooy début de match parce que dañuy jouer équipe boo xam ne dafa perte ci confiance dañuy jouer équipe boo xam ne tey jii dina sentir fébrilité booy jouer ñoom li gën a am solo mooy suñu entame de match tey jii bu ñu dawee entame de match bu baax ñu teel leen dugal équipe boobu dafay gën a donc perte confiance donc à l'instant Youssou Diall nekk conseiller en marketing de la de la fédération sénégalaise de football Louis Lamotte nekk itam président bu commission marketing moom nag dafay lancer appel euh, ci match bi nga xamante ne war na dox ci diggante Sénégal a Côte d'Ivoire Sénégal euh, équipe euh, mooy joueur yi bañ a répondre ci benn provocation ndaxte match bi dafay nekk benn stratégie te mën na am ivoirien yi nga xamante ne jamono ji la ñu bëgg moo di racheté wu mën nañoo indi beneen xar kanam donc nag expérience bi nga xamante ne sénégalais yi am nañ ko joueur sénégalais yi am nañ ko faw rek ñu daal di indi benn expérience bañ a nag daal di répondre à la provocation loolee di ay kàddu luwe la mot ñu teewlu ko. match bi ñu jublu dafa wuteeg match yi ci passé te yéen même soo match yu bari supporters yi dooloon rek ay Sénégalais bari na woon ay Ivoiriens yoo xam ne dañu am ak ñun sol seen yëre Côte d'Ivoire di supporter Sénégal kooku nag suñu diggante ñaari réew moom mel euh, histoire relation sociale yi moo tax ba Sénégalais ak Ivoiriens pratiquement benn peuple tey nag dañu war a daje ak suñu nattangoo yooyu ak suñu frère yooyu jongante ñu jongante la rek match bi moom ku gagné rek ñoom ñaar ñu ko gagné ñaar ñu ko gagné mu sóoraale ne fii bari na ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi fi nañ fexe ni ñu def ba sigil leen ci match mooy am ndam waaye sigil bi aussi mooy ñu am taxawaay boo xam ne ñun suñu delloo Sénégal ñoom ñu bañ a xat fii La Cannes Côte d'Ivoire 2023 c'est aussi une couverture euh, médicale pour supporters yi maanaam délégation bi nga xamante ne ñoom ñëpp dañoo def déplacement wutali ji ca Yamoussoukro waaye également pour les journalistes bu ñu sukkandikoo ci docteur Babacar Ngom moom nag euh, jot naa def point maanaam ci changement climatique bi li nga xamante ne délégation bi jot nañ ko am comme jafe-jafe waaye itam journalistes yi docteur Babacar Ngom ñu teewlu ko ci micro Soxna Fall fi mu nii ay bopp yu ay tension yu déséquilibré wala ay diabète yu déséquilibré ci lépp euh, li ci ëpp ci euh, euh, feebar yooyu lañuy ñuy jànkonte. bu ngeen di def ministère mettre na en place benn dispositif ñun ñett ñi lañ jël pour ñu saytu ñu tas ci hôtel yi parce que fukki hôtel la bu fekkee da nga génn bu bu bul Lyon yi juróom-ñeenti hôtel la la délégation yi nekk. nañ installé ay infirmerie ci ñetti hôtel euh, bi ñu jox ñu également benn ñu benn véhicule de liaison boo xam ne ñi à chaque bu ñuy wootee ñu ñooy déplacé wu dem seet nit ñi bu fekkee nit ñi ci mënul déplacé docteur Babacar à présent le portrait du jour on parle du joueur Moussa Niakhaté mi nga xamante ne atum 2022 septembre 2022 la daal di wuy si sélection bu njëkk bu Coupe d'Afrique des Nations moom nag ba mu ñëwee performance yi nga xamante ne jamono ji ma ngi koy def ca Nottingham Forest moo di benn club nekk ca anglais ci championnat anglais ba performance yi nga xamante ne moo ngi ko fay def moo tax Aliou Cissé daal di koy wóolu woo ko ci noonu nag ba mu ñëwee ci équipe nationale bu Sénégal am na yi nga xamante ne chamboulé na benn benn dispositif ba mu fa fekk maanaam bu fekkee paire ba nga xamante ne moom lañ daan teg Kalidou Koulibaly ak Abdou daan na dox Moussa Niakhaté dafa ñëw chamboulé lépp ci noonu euh, bu ngeen seetloo match bu njëkk bi doon dox ci diggante Sénégal ak Gambie Aliou Cissé Moussa Niakhaté ak Kalidou Koulibaly la daal di tegoon loole nag di wone évolution bi nga xamante ne jour boobee atum 1996 rek la daal di juddu maanaam jamono jii nii 27 ans la daal di am tax it Pape Manta jot na cee def benn portrait bu yaatu yaatu ci parcours bu joueur boobee. mu Niakhaté tey jële mu bokk ci meilleur défenseur yu équipe nationale bu Sénégal di football foofu ci Nottingham Forest mu Niakhaté nag yàgg rêvé porté maillot bu équipe nationale bu Sénégal tey jëlee nag boobu le rêve moo koy réalisé ak gaynde yi foofu ca Côte d'Ivoire bii nag nekk première. coupe d'Afrique am des nations di fàttali ni défenseur sénégalais boobu nag moo ngi évoluer foofu ca Nottingham Forest ca Angleterre moom moo ngi def ay début professionnel am foofu ca Valenciennes ni ki octobre jot faa def lu tolloog trois saisons gannaaw ba saison 2017 ci le rejoindre FC Metz pour quatre saisons mu ñëw affirmé wu nekk espoir football bu France jot naa nag football ci petite catégorie ci équipe nationale bu France waaye saison 2017 2018 foofu ci FC Metz Moussa Niakhaté jot football 35 match amal ab passe décisive match boobu sax ci diggante Metz ak Montpellier la woon Metz daanoon ñett bal ci dara ci mujjantal ga mu Moussa Niakhaté signé foofu ca Mayence ni ki le 7 juillet 2018 ci montant wu 10 millions d'euros mu nekk capitaine bu gën a ndaw ca Bundesliga à l'âge de 26 ans deux ans nag Moussa Niakhaté moo ngi évolué ak équipe bu Nottingham Forest naam ndoxte li xawoon na métti ci moom ak ay blessure waaye tey jëlee dafa imposé wu nekk titulaire indiscutable défense bu Nottingham Forest attaquant yu bëri nag ca Angleterre di ko muslu ndax physique am ni ki noonu ay duelam di def nag ay passes yu précis jëmale ko ci attaque bi Moussa Niakhaté di dund nag première coupe d'Afrique am des nations taxawaayam tax sax ba mu relégué kii di abu Diallo ci banc bi di formé nag duo bu am solo ci ak central bu gën ak Sénégal yi moom ak Kalidou Koulibaly. naam benn match rek la jotagum football ci bile Coupe d'Afrique des Nations waaye match boobu noonu dina convaincre Sénégalais yi ak monde sportif bi tey jële rêve am mooy nekk champion d'Afrique ak équipe nationale bu Sénégal. di fàttali Moussa Niakhaté moom may bokkutoon sax ci match bu mujj bi ginnaaw ay jeunes yi nga xamante ne daal di woon na nga koy ressentir waaye nag dafa mel ne jamono ji mi ngi si jàmm bu baax a baax te moo ba moyul Aliou Cissé mën na ko aligné ci match bi nar a dox ci diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire ñu wax ci image jour wax ci euh, équipe bi nga xamante ne moom mooy Angola ci benn vidéo de danse bi nga xamante ne def nañ ko euh, CAF moom moo ko moom moo ko dugal ñoom nag ñi ngi doon fecc dafa mel ne rek dañoo yëgoon ne mënoon nañoo door ndambi bi moo tax it kontaan nañ bu baax joueur anglais yi bu fekkee teew na as ñu seetaan ko. l'équipe angolaise qui reste la première nation à se qualifier pour les quarts de finale ñeel euh, 34e édition bu Coupe d'Afrique euh, des Nations lu mooy loolee ba léegi lu ñeel match euh, match boobee di dox ci jamono ci diggante Nigéria ak Cameroun ku nekk dugalagul sa morom on joue à l'instant même la 29e minute par contre Nigéria amoon na benn but ci 11e minute seulement VAR daf ko annulé lii nag moo